بسم الله قيما لينزل بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا خالدين فيه أبدا وينزع الذين قالوا اتخذ الله ولدا بك على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت والرقيم والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال شططا صدق الله العظيم تكبير jaale mooy soxna Aïssatou Diakhaté ma doon présenté léegi ni kenn loon ci yaay daara ji jëloon daara ji def ko muy daaraam mu bàyyi ko woon fi ci diiru ñaari at waa daara ji doon ko delloo hommage waaye di ko fàttali ko di ko ñaanal tax ñu jaare ko bis bii njabootam nag ñoo fi teew ñu bëgg leen waaye dalal leen su ko defee ci kanam tuuti daañu leen jox kàddu ñoom it ñu jàllale seen kàddu yi cant yi nga xam ni amee nañu ko. boo ñooñu dañ ciy tudd ñaar rek su ko defee ñu yóbbaale ñu ci des ndax ñu xaw a lañu waaye ku ñu wax Serigne Diakhaté di rab ci. nee nañu dara soxna si ak ku ñu wax Serigne Ndiaga Pouy moom Serigne Saliou Touré kilifa mbootaay boobu wala wala moom nga xam ne ñoo fi teewal soxna si ak Serigne Abdoulaye Diakhaté day di lay sëñ incha allah ñooñu daal dañ ñu yóbbaale ci defee dañuy shafian li ashaabi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi nuyu mboolem ku fi teew ndax tey dañuy jàpp ni mboolem ku fi teew rek yaa ngi bokk ci ahlul quraan ndax génnul kiy jàngale ak kiy jàngalu ak kiy jàng ak kiy déglu te bëgg boole ci kon yàlla buñ ci génn di nuyu Baye Talla ak sëñ aadama Ndiaye ak ñoom sëñ Ibra Ndiaye waaye di nuyu oustaz Ahmed Dame Loum di nuyu ci parents d'élèves yi Serigne Birane Ndiaye di ndokkeel xale yi nga xam ne ñoo wattu alquran di ndokkeel seeni way jur di nuyu sëriñ Babacar Ngom mii ñu dendal nga xam ne miin nañ ko ci jataay bi waaye ku jar a déglu la. temps sax amul mënoon nañ ko jox directement mais nag dañoo séq daara ji ñi ma jot a tudd ñëpp ñi xam xam nañu lan lañ ci daara ji ba ci sëñ Mor njaay mële kon lii yàgg naa am ci daara ji yàlla bu mu deñ di am ci daara ji te itam saa yu amati yàlla gën di yokk di nuyu soxna yu baax yi ci biir daara ji nga xam ni ñoom itam ñooy yaayu daara ji ndax daara moom dafa yaatu. kon bañ pour ñu bañ a guddal sëriñ Babacar moom lañ bëgg a jox kàddu gi ndax tey dañuy def li ñu tuddee jàng alquran di ko diglu waaye tamit jàngat alquranul karim ngir mën koo jariñoo alayhi salaatu wasalaam duggoon na ci biir jàkka ji di almasjidu nabawi fekk ñee ngi yor seeni jukki ci misaal di jàng al alxuraan waaye am ñeneen ñu toog di jàngat mooy di leeral li ci biir lan la muy njàngum xam-xam mu ne ah ñii de ñi ngi ci yiw waaye ñii tamit ñi ngi ci yiw waaye innama bu'ithu mualliman dañ maa yónni ngir ma xamle nee nañu daal di dem toog ci géew ñi nga xam ne ñooy jàngat alxuraan kon jàng baax na mais jàngat ndax alxuraan looloo tax mu wàcc alxuraan li tax mu wàcc kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyaddabbaru ayaatihi wa liyatadakkara ulul albaab yàlla nee na dama wàcc téere bi ngir ñu jàng ko waaye tam ngir ñu lan ngir ñu settantal ko ngir ñu setantal ko ndax ay déglee ngi ci biir ay tere ngi ci biir ay attee ki misaal ak i xisaak lu nekk ngi ci biir alquranul karim kon njàng mi kese li muy baax baax doyul moo tax ki wattu alquran nii ngelawaay bu mu fi yem am na fondation boo xam ni amul lu mu àttanul waaye ñu bari dañ naan sama doom wàcc na sama doom mokkal na saye loolu catastrophe la te beneen bi du am encadrement bi war pour téye li mu mokkaloon kon yàlla wërsëgal na koo xam ni yombul ci famille bi yombul ci askan bi yombul sax ci jullit bi waaye tem boo sàgganee ren ba ren la mu yoroonu sànku kon loolu itam responsabilité la boo xam ni waajur yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax buñ demee banaan ci xadis boo xam ni xam naa sëñ Babacar yi toog ci wàllu xadis moo ñu ci gën a kii bu ñu ne yonent bi nee na gën a tar mbugal ki ab aaya ba noppi fàtte ko wattu aaya ba noppi fàtte ko waaye boo ko wàcce waatee da nga naan kooku bu ko yàlla dumaa jar na ko ndax mu ramb fi ñëpp tànn la ndax summa na alkitaaba alladina stafayna min ibadina kon yàlla bu la boolee ci li mu tànn jox la lu mu tànn li muy alquran muy wërsëg woo xam ni amul lu ko mën a wecc ci kaw suuf ngay sàggan ba loola rëcc ma ni bu la dumaa jar na ko ndax nit a ngi yori milliard te mënu koo am kon sëñ Babacar mi ngi bëgg ak ñëwoon ñun ci alquranul karim waaye ak daara ta gis nga réew mi jafe-jafe yeeg jalte yi fi nekk yépp wallahi buñ dellu woon ci alquran delluwaat ci daara mu defar ñu defaral ñu suñu njaboot réew mi léppay baax te kañuy tànn nit ku baax doo nga lay doon ndax ci daara lañ koy génne mais ñun dañoo gëmul ni daara mën na ku génn ci daara war naa mën a yorum réew feebar boobu moom feeg jógu fi réew mi nii mu nekkee du fi jóg ba ca des itam ba ca des itam mooy bu fekkee ni li ñu fi ñu war a defaroo defaruwuñu ndaw ñi ba ñu mer li ñu war a mel keneen ku ñëw laa wax di jiite réew mi ñu takk saret di ñu duma te boo nee bàyyil du bàyyi kon kañ la réew mi jàpp nañ dellu ci alxuraan ñu fekk ci jotaay bi ci ay kilifa ak i mag ak borom xam-xam ak borom yi daara di wàcc ñëpp seen wàccuwaay di ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñun ñëpp mu bindal ñu aw yiw defal ñu tawfiix defal ñu aafiya defal ñu jàmm defal ñu sutura àdduna ak alaaxira yàlla sàmmal ñu réew mi sàmmal ñu diine ji musal ñu ci lépp loo xam ni balaa la ak lépp loo xam ni fitna la euh, comme ni ko sëriñ daara al ustaaz Daawda Mbay ubbee léegi euh, alquraanul karim bi mu doon waxtaane mooy lépp alquran moo lépp mboolem génération yi musa jaar alquran mu leen defar tàmbalee ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci mag ñu baax ñu nekkoon fii ci réew mi alquran ja yàlla wàcce woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Màkka ak Madina ba tey alquran jooj moo fi nekk waaye nag mu des ñooña nan jàppee woon alquran nañ ko gëme woon nañ ko doyloo woon loolu moo manqué moo tax jullit ñi deltu ginnaaw mais alquran fa mu nekkoon ba léegi fa la nekk. suñu borom tabaaraka wa taala dafa wàcce alquran. mu nekk téere boo xam ne mooy orienté nit ki di ko gindi di ko wan yoon wi muy jaar ba karam muy fekk suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla ñaar lañu ñu boole loon mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam fekkuñu ko fi waaye alquran moo fi des ba ilaa yawmi diin yàlla garanteel ko boppam garante goo xamante ne kenn nettali ko moo ko nettali boppam ci alquran wax ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun yàlla dafa giñ dogu ci ni moo wattul boppam alquran moo koy sàmm moo tax alxuraan kenn mënu koo xeex ku koy xeex yaa koy xeex yaag say pexe yaag sa alal yaag sa am-am yaag sa mbooloo yaag sa kuréel yaag sa association ba xëy dee seeni pexe nax saay wax alxuraan day kun na yàlla ko nun sëriñ daara du ñooy aal alxuraan dañuy ñaan yàlla mu boole ñu koy soldaar yi nga xam ne ci lay aaree alxuraan waaye yàlla moo ko garanteel boppam ndax xam ngeen ni su fekkoonte ni xeex alxuraan moo ko fi jëlee ñun duñ fekk dara xoola tubaab bi fi mu jaar ak mag ñu baax ñi ñaata sëriñ daara la tëj ñaata sëriñ daara la rey ñaata daara la taal waaye tey la tey tey taal bi gën a jolli li ci li ci li ci gën a yéeme sax li ci gën a yéeme mooy di mel ni yàlla day gën a wane boppam ci alxuraan ci mujjug jamono. bu njëkk ba am na xeeti autorité xeeti nit ñoo xam ni dañoo jàppoon ne alxuraan jàng ko tardé la seen yoon nekkul ci alxuraan ba ci état yi ba ci gouvernement yi ba ci président yi mais tey ñëpp a ngi jéem a songaat alxuraan di organiser ay ay concours ak di jéem a ay piri yëpp waaye yàlla kenn mënu koo nax yàlla mu nga fa mu nekkoon ba léegi. alxuraanul karim ñi fi nekkoon ci mag ñu baax ba seen résultat bi egsi fii tey seenub liggéey alxuraan moo leen ko may ndax alxuraan nag mooy sagu jullit ñi. suñu borom moo ko wax wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun jullit ñi seenub sag yàlla nga ko def ci alquran ku sagoo alquran am sag waaye loo am lu dul alquran boo ko wanee ginnaaw da ngay torox sëñ daal du junj ne ko léegi wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama qaala rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira qaala kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadalika al yawma tunsa su cib tënk suñ borom nee na ku du mooyu alquran yi bu ëllëgee ma wan la ginnaaw ku yàlla du mooyu wan la ginnaaw foo jëm sa wara kon nag nañu góorgóorlu ngoyaat ci alquran jàpp ci bu baax suñ borom wax na ko yonente bi ne ko fastamsik billadi uxiya ilayka lii ma la wax jàpp ci bu wér kon nun julli nañu góorgóorluwaat jàpp ci alquran suñ ci jàppee daañu tedd àdduna daañu tedd àllaaxira suñ bëggee teraangay àdduna ak ju àllaaxira yëpp nañ jàpp ci téere bi ndax alquran moom mooy téere bi nga xam ne bu dee wërsëg gëgg ak barke lépp a ngi ci alquran suñ borom wax na ko suñ daaw da jàng na aaya bi léegi borom bi nee na kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak naa wàcce ci yow téere boo xam daa barkeel barke nag mooy yiwu bëri woo xam ne fa mu yem yàlla rek ko xam alquran yiw wi mu làmboo kenn da koo xam ko dul yàlla kon mënoo nekk ci alquran di ci yëngatu bu bëccëg yàlla di la kon nañu góor góorgóorluwaat ci alquran ji barke barke mooy lépp gis nga alali àdduna nit ki mën naa am ay jali jal ay jóoru jóor waaye du ko jariñ dara fu mu tulu mu ci ay naqar mu ci xol bu naqari xol bu feebar ba xëy dee waaye nit ki nekk ci alquran mën naa bañ am lu ñu fàngaaral nit ñu di ko naw waaye féexu xol gi muy am cawarte gi muy am ci jaamu yàlla keneen ku dul moom du ko am moo tax suñu borom ni ko fas tamsik billadi uxi ilayk jàppal ni li jox feebar yi xol yee jàngoro yi jàngoro yi ñuy tawat yépp moo xam feebar yi ñu ci hôpital yi la moo xam jàngoro yi xol yi nga xam ne mooy kiñaan ak soxor ak ngistal ak yooyu yëpp alxuraan moo koy saafara suñu borom nee na wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma qul huwa alladina amanu hudan wa shifa yàlla neen alquran day saafara waaye nag saafara fekk nga xam nga gëm ni lii saafara la wala nga xamit nañ koy jëfandikoo waaye su fekkee jàpp nga ne alquran du saafara <laughs> du la jëriñ dara yow yaa ngi sikk sàkk su fekkee xam nga ne day saafara waaye jëfandikoo nañ ko war a jëfandikoo doo jariñoo kon faaw nga gëm ni alquran day saafara ba nopp nga jaar ci yoon wa nga xam mooy tax alquran man laa saafara mbokk jullit yi doomu aadama yàlla da koo composé ci ñaar muy yaram wi ak ruux yaram wi ruux gee ko féete kaw moo tax ruux gi bu nekk ki génne àdduna mu dem wuy ji boromam yaram wi moom dañuy gas wàq ba mu xóot ñu dugal ko fi yaram wi li koy suuxat di ko alimenté mooy lan mooy lekk ak naan lekk gu baax ak naan gu baax ruux gi nag li koy dundal mooy alxuraan saa yoo bàyyi jàng alxuraan soo nekku ci alxuraan xol bi day day feebar bu yàggee mu dee borom bi tabaraka wa taala moo wax ni wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina mooy maa la jox loo xam ne wax yu la alquran ji nga xam ne dafay dundal xooli doomu aadama yi dafay suuxat seen ruux alquranu karim li ci nekk sëñ bi ci ay ngëneel yàlla rek ko xam moo tax ibnu barin bi muy lim ba mu yàgg dañuy waqad atat fi fadlihi athaaru laysata fi bi a athaar nee li ñëw ci alxuraan ci ngëneel boo ko bindoon sëf ko ci ay gileem gileem mënu ko yen ndax alxuraan ni mu doy ci dayoo yàlla rek ko xam damay mos a waxtaan ak sama benn xarit suñ daar ñu waxtaan ci alxuraan day saan ak guddi maama chie sëñ Babacar alxuraan géej la mën ko déet géej mi def la ci alxuraan du mi def alxuraan ëpp na géej ndax géej mbindeef la te yaa alxuraan du mbindeef moo tax nit ki man a sañ sañ a waat ci alxuraan alxuraan melokaanu suñu borom la tabaaraka wa taala du mbindeef alxuraan du mbindeef laysa bi maxluuqin yow mi jàng nag yaa naan aoudu billahi min shaytaan rajim alhamdulilahi alladi anzala man mi dégg yow làmmeñ may dégg ak araf may dégg sa làmmeñ la bàyyi ko yow mbindeef waaye wax ji waxe kan ak boo ne yàllaaw bil Mustafa Sindiidi ku wax man damay nettali waaye loolu waxi sëñ Tuubaa la noonu la alxuraan deme li ngay jàng wax yàlla la waaye nag yow la ñu dégg sa kàddu soo ko bindee yow la ñu gis sa mbind waaye nag alxuraan di wax yàlla la loolu moo tax alxuraan nekk téere boo xam dafa diis su dul woon a yàlla kenn du ko mokkal yàlla ci yërmande lu ko xale yi mokkale téere yi jiitu woon alxuraan yonente bi yàlla yónni doo nga koy mokkal tawraat kenn ko mokkaloon injil kenn ko mokkaloon am ñu ne tawraat Moussa ak xalem bi mu àndaloon Yunus ñoo ko mokkal waaye keneen mokkalu ko alxuraan waxuma la jamono yonente bi waaye suñu suñu kees gi bul wax Sénégal kees gi ñaata ñoo fi mokkal alxuraan kenn daa xam na mu toll nga jël raison par raison ñaata ñëf moo ko alxuraan ci at mu ne kenn xamul nu ñu toll moo tax suñ borom tuddee alxuraan qawlan thaqila inna sanulqi alayka qawlan thaqila wax ju diis la alxuraanu karim xoolal ni alayhi salaatu moo tax ku bëgg lu baax da ngay sonn de ku la ne lu baax yombal da lay nax yàlla yàlla moo ñu xamaat ci alxuraan ne moom lu mu bëgg rek naan kun moom du caañ day wax kun fayee kun de ñaari araf lay jëfandikoo kaaf ak nuun kun fayakun ji nag mooy résultat ba maanaam du caag yàlla danaan ko kun fayakun déedéet kun la koy wax fayakun nag mooy résultat bi danaan ko nekkal mu nekk waaw lu tax yàlla néewul alxuraan nekkal ci xolu Muhammad mu nekk ci xolu Muhammad mu xëy di tari alxuraan déedéet yàlla dañu war yoon yàlla dañu war aw yoon yoon bi mooy faaw nga am ab sëriñ bu lay jàngal nit ki mënoo xëy xëy rek yeewu am xam-xam wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'an suñ borom ne bi ngeen ñëw fii andi wu xam-xam kenn dara waaye nag jàng mooy tax a xam moo tax Omar doon wax ne innamal ilmu bi taallumi xam-xam li koy maye mooy nu ngoo jàng yàlla wan ñu aw yoon daal di jox alxuraan yooyu jibril jibril andi ko yonent bi saa salaam ba mu njëkkee ñëw dañ ko iqra jàngal mu ne ko maa ana bi qaari ñu bëri dañ koy firé daal lànk bañ a jàng de dañ ko ñun ñun ñun arab yi bokkul suñu aada jàng xamuñu ko te loolu dëgg la arab yi xamuñu jàng jibril daal jibril jibril daal mboq ba mu sonn lépp ya lépp te yonent mooy soppeeb yàlla sa doom lu mu foor foor boo ko joxee seen gaara bàyyi xel ne lu mu foor ci yow yonent bi moo gën a foor ci yàlla te xoolal yàlla seetaan jibril di ko sonal mu mboq ko ba mu sonn bàyyi ko mu ne waat ko iqra bismi rabbika mu ko maa ana bi qaari mu jaaraat ak moom foofu mu ko ci ñett yoonu ñetteel mu ne ko iqra bi rabbika iqra bismi rabbika mu ne ko maa ana bi mu mboq ko ba mu ko mboqee ba mu sonn bàyyi ko nag yonent ba mu demee këram daa tiit ci li mu gis ak la mu daj naan zammilu ni dathiru ni sàng leen ma sàng leen boole ko lañ ko wax ne mu koy répété di ko bañ a fàtte ngir balaa muy dajewaat ak sëriñ daara bi bi mu koy répété di ko baral yàlla ni ko déedéet laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qarana fattabi qur'ana thumma inna alayna bayana ma ne kon bu fekkee ngën ji mbindeef nga xam ne mooy soppeeb yàlla bi nga xam ne eh, mooy ki gën ci mbindeef yi ñëpp dëppoo na ni ki gën ci mbindeef yi mooy yonent bi alayhi salaam comme ni ko xaadi yaat waxe mm. waaw su fekkee mooy sonn ci wala sëñ Daawdu am na maqaam ne doom de jàng alquran du sonn da ngay nax sa bopp kon alquran dafa diis moo tax ka koy jàngale waxuma la fi ne da nga jàpp ne xale yi sonn mais ñu jàngale ñoo gën a sonn fuuf ñi jàngale alquran ñoo gën a sonn xale yi fuuf waaye nag alxuraan jooju ci la yàlla dëxëñ lépp ndax mooy ndey xam-xam yëpp borom xam-xam ne na mboolem xeeti xam-xam yi nekkoon ci téere jiitu woon yàlla da koo dëxëñ ci alxuraan alxuraan résumé ko ci biir alxuraan yàlla résumé ko suratul fatiha ci biir fatiha yàlla ten ko ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moo tax lépp bépp xam-xam sëñ daaw du ne ko léegi bépp xam-xam moo xam xam-xamu diine la xam-xamu sharia la xam-xamu adduna la soo mokkalee alxuraan boo ci sóoboo da koy da koy xare ñaar nit mooy ki mokkal alxuraan ba noppi nag bañ a jàng xam nga ki bëggul jàng bëggul xam-xam moom kooku kooku kooku kooku gaafam la mais ki jàng xam-xam bu mu mënti nga bëgg ko def ci sa xel nga am ku la encadré da ngay dem ndax alxuraan mooy ndey xam-xam yëpp. loolu nag bu ko waxee jubluwoon ci ni ki jàng alxuraan bu mokkalee fa fos daaw des ci daara ji wala dem jàngi leneen déedéet tax ah kay mën naa jàngi leneen. waaye nag waajur na góorgóorlu sëñ daara léegi ngay sa doom sëñ daara bi di sonn ba mokkal alxuraan ñu defal ko ab xaf la mu tari ni ñëpp ne est-ce que nga bàyyi ko alxuraan di dem amatul njëriñ ko jël woon yóbbu ci daara xale xamagul lim yor wala du yow waajur yaa koy jàppale damaa gis sama benn wëlëre boo xam ne bi ay doom mokkal alxuraan bu timis jotee da leen taxaw ñuy tari tari tari ba gee mu leen su fekkee xamoo leen li ngeen daj ba mokkal alxuraan ma xam man li ma daj ba ngeen mokkal alxuraan kon xam nga kooku am na fulla de <laughs> su ngeen xamul li ngeen daj ba mokkal alxuraan man ma xam li ma daj ba ngeen mokkal alxuraan waajur nag loolu la doon séentu ci ñoom eh soo xamante ni xale bi day dem du ko toppatoo daal di ñëw ne waaw xale yi mokkaluñ waaw bañ ko déedéet alquran kenn du ko tappale moom da koy mokkal baa nga ñàkk koo mokkal waaye nag alquran bu ko nit ki dee toppatoo ginnaaw ko ba mu ko mokkalee mën naa bañ a gaaw a dem na njàng mu bees mi xam nga bu njëkk mag ñi dañ daan jàng fukki at fukki at ak juróom ñaar fukki at boole ko beqi ko bind kaamil jox sa sëriñ bind ci léegi loolu daanaka amatul su xale bi teelee mokkal alxuraan nag alxuraan ji ñu door a mokkal saxagul dëgg dëgg dëgg dëgg daa laaj ab toppatoo benn mu des ci daara ji ñu koy toppatool alxuraan ji moo xam ne day jàngi franco arabe di ñëw wala daara ji am franco arabe wala majalis wala mu dellu seen kër way juróom fexe ba utal ko koo xam ni moo koy taxawu moo koy taxawu muy tari alxuraan ji su dul loolu alxuraan ji day dem kon nañu góor góorgóorluwaat bu baax xam ni mokkal alxuraan li muy baax baax nag du farat mokkal alxuraan li muy baax baax du farat fardu kifaaya la xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam faw mu am ci aw nit ñoo xam dañuy wattu alquran waaye nekkul ni far force ku yóbbu sa doom daara daa war a mokk alquran sëñ daara yi ba léegi fii seen doom mokkul te ñu ngi jàngale bu doon loo xam ne sëñ daara bi koy joxe kay dama naan kon sëñ daara bi jëru mu yeewu ay njël ak yooyu di day bàyyi ba dix heures mu defaral ko ndékkeem lu baax mu ñëw ku ñëw mu raay sa bopp ne mokkal nga daal di mokkal dem lu sonn mais alxuraan nekku ci loxoy seen daara bi am na seen daara yu bëri yu ma xam yoo xam ne ñu bëri lañ mokkal alxuraan ba fi may wax yow nii ba ba jotaayu tey bi amuñu doom ji mokkal alxuraan nga xam ne yàlla may wane foofu boppam ba fekkoon lu muy séddale kay yaa xayti molaana balaa muy jox keneen kay daal di jox waa këram kon loolu waajur yi faw ñu bàyyi ko xel buñ bëgg a manipuler oustaz waaw sama doom yàgg na fi mais sa doom yàgg na fi est ce que sa doom xel mi neex na est que sa doom même bu xel mi neexee yàlla dogal na war a mokkal alxuraan loolu oustaz bi xamul de moo tax muy jéem su oustaz bi xamoon leer yàlla ubbil ko kumpa mu xam ne kii du mokkal naa ne sëñ bul sonn kii du mokkal waaye nag oustaz bi ak yow ñoo ci yem rek moom day farlu di def effort am nga def sa effort ba kër yàlla sottal waaye li ma wax foofu mooy nit ki boo yóbbu woon sa doom ci daara mu jàng alxuraan moo xam ñeenti at la baa ñeenti at baa juróomi at mokkalul bul jàpp ne dangaa déedéet bul li ma fay lépp mokkalul déedéet la fay bu fekkee yéen a seel na mu nga sa compte bancaire alaxira te doom ji ma mokkul alxuraan mais ara fu mu jàng ñaata ñaata tuyaaba la ñetti tuyaaba. ñetti tuyaaba yooyu ara xale bi juróomi at la jàng ci daara ji naa am mokkul oxaat waaye nag lu gàtt gàtt wàcce na moom daana xëy njël 4 heures di jàng ba 7 bu jëlaatee 9 heures jàng ba 1 heure bu 3 heures mu jël bang ba 6 bu ñu julee timis ba gee yenn daara yi 9 heures yenn daara yi 10 waa waxtu yëpp dajale ko nga multiplier ma ñaata araf la fi jàng araf na nga multiplier ko par 3 nga xool ñaata tuyaaba la. yow waxuma la nga doon jël sax di ko def ci daara ji di ca sonn ci daara ji waaye xale bi li mu doon jàng rek bu la ko yàlla fayee da nekk milliardaire ci tuyaaba waaye noonu nag millionnaire ak milliardaire ci xaalis <laughs> fa waaw luy maye xaalis luy yokk wërsëg la dégg saxaaba yi nag ak mag baax ñi foofu la ñu mënoon dégg ku ñëw ko la tegtal ma loo xam ne su ma ko defee ba deewee dem aljana tegtal ma loo xam ne su ma ko defee rek sori sawara waaye nan moom xaalis <laughs> xaalis baax na waaye nag <laughs> nan ci boole leneen bu ko kon li ma foofu mooy yow bu yóbbu sa doom ci daara te mokkul al bu mu tax nga ayibal daara ja wala sëriñ daara ba déedéet alxuraan nekkul ci loxoy sëriñ daara ci loxoy yàlla la nekk ci loxo yàlla nekk waaye yow la ngay dalalee sa xel mooy alhamdulilah rabbil na ndax sama doom ji ñeenti at yi mu nekk ci daara ba juróomi at yi su fekkee araf fu mu jàng ñu versé ma sama compte bancaire alaxira bu ëllëgee ci wali yu mag yi laay bokk ndax rawante bi moom du dara ci lu ci tuyaaba ak yiw rek fii ñu nekk ci àdduna course la rek ku la fa raw ku ne rek lan la rawee mooy gën laa topp yàlla def ay santaaneem gën laa bàyyi ay tere foof it beneen tomb am na fi ma ñu bëri dañuy juum ci seen nattuwaay man yóbbu naa sama doom ci daaree seen daaw mokkalu alxuraan foo dem ne ah daara jo jàng amu fa sama doom sax mokkalu déedéet moom moom balaa muy ñëw fekk na ay fukki fukki nit mokkal ci ginnaaw ay fukk mokkal mais jooju mooy mesure moom mooy nattuwaay ñu bëri bëri si parents yi loolu mooy seen nattukaay ñoom seen doom la ñuy xool rek xooluñu daara ji tey jii ne fukk na fi at may weesu juróom bala weesu juróom-ñaar déedéet ñoom seen doom daal mooy nattukaay bi su sa doom mokkalee xam dara nga ne ah daara ji macha allah woo daara sëñ daara woo sa doom mokkal nga ne moo daara ji mënuñoo jàngale ah ustaas yi dàngam <laughs> mbir mi du noonu. su sa doom yaroo nga ni wuu daara jooju kay ñu dàq yar fii su sa doom yaree ko nga ni woo daara ji yar yaratuñ léegi. <laughs> yaa axi mbir mi du noonu gis nga jàngale moo gën a yomb moo gën a yomb yar moo tax naa naan yar taqoo ay yar ay at yu bëri la laaj parce que yar jëfe la jàngale nag maanaam da ngay diglu di enregistré xam nga xelum doomu aadama soo soo jëlee ab aaya waxal ko xale bi ñaar ñetti yoon mu toog fee di ko répété di ko répété di ko répété bu yàggee mu mën koo tari mu yàggee jaar jaar bu yàggee mu ko waaye yar beneen mbir la. moo tax jàngal xale bi moo gën a yomb yar ko ñeenti at mën nga cee jàngal xale bi mokkal ku la ne mën naa ko ci yar da lay nax joxul loo ñeenti at mënoo ci yar xale parce que xamaa ne yar mag ni moo gën a yomb yar xale parce que xale xamul luy yoon ñaata ngay digal xale bi bul wax lii bul def lii bu xëyee bu subaa mu defaat ko ah ndax xale ko comprendre ko loolu faaw waajur yi bàyyi ko xel ci mbirum mbirum daara ndax ñu bari loolu la ñu be bi ñu des mooy waajur yi dañuy bàyyi xel Euh, bëri na daara yu am problème bëri na daara yu am problème léeg-léeg na ay sëñ daara sax wala ay mujjur yoo xam duñu toog ca daara ji nañu war a toogee waajur yaa ngi koy jàmbat fekk ñoom waajur yooyu ñoo ko waral ñoo ko waral te xam nga ne daara nga dajale fanweeri ndonga ba juróom fukk ba téeméer yaa xam lim boo joxe xale yi war a xëy di ndékki wala ndéet di xëy di añ di xëy reer oustaz fu mu koy jëlee oustaz góorul yettul jaayul jëndul businessul amul lu ñu toog si jaadaam ak seesam di jàngale yow waajur yi nga jël engagement ba oustaz sa engagement boobu mu jël ci beneen jàngalekat beneen jàngalekat jël ci ab muraqib dund gi ñëwagul nangami waajur weeru dee ñu boycotté du ñu ñëw ba oustaz wooyu du leen jot léegi naka la daara ji doxe mais bu oustaz gisul lu mu xam nu mu def du jéem a génn dem lijjanti ji du lijjanti wala day toog day toog nañ xaar yàlla ah déedéet yaqiin boobu mag ñoo ko amoon ñun àgguñu foofu <laughs> toog toog xaar yàlla moom beneen niveau bu kon li ma bëgg a mooy am na daara yu am problème am na daara yu am problème am na daara yu tas mais sekk ci parents yi la léeg nga ñëw fekk daara ji la ñu toggee demewul noonu maanaam agul ci benn niveau bi ci wàllu neexaay ak ya ci aju nga ne ah daara ji kay dañuy fay ku fekk nangam mais man naa am yow wajuroo yàlla dogal na nga farlu sa engagement mais fukki wajuroo fi bala ñaar fukki joo xam defuñu dara te bàyyil xel bépp waajur bu yóbboot sa doom ci daara bàyyi xel ne yow da ngaa fayal sa doom fayalaale beneen beneen doomu jullit bu new doole. daara yi ñaata xale ñoo fa nekk te duñ fay ah, boo ñëwee nag daal di xool ah waa daara yi Oustaz Sidi ah daara ji téeméeri xale téeméeri xale ku ne fukk eh, ki ne juróomi juróom ah waaye si am na xaalis de <laughs> kon naxu nga waay sëñ bi xam nga ni ñun eh, daara li cosaanam mooy mooy mooy jot Eh, eh, risaalatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax du utukaayu xaalis moo tax xooloon daara ku ci ut xaalis ci am xaalis daara du utukaayu xaalis barke lañ ci deb waaye du utukaayu xaalis yëgal ni am na ay doomi julit yoo xam ne ay jirim lañu seen waajur génn àdduna daara ji jël leen di leen jàngal te dërëm joxewuñ ko bëri na ñoo xam ne seen waajuroon dund bëgg nañ alxuraan ni ko ñëpp bëggee waaye mënuñoo fay daara ji jàppale la bëri na waajur wu jëloon engagement di fay ab liggéeyam dox muy fay mu dem ba mu yàgg liggéeyam taxaw na mënatu la fay kenn du ko dàq yow yaa ngi yóbbaale kon kon li ngay jox yow yaa ngi yóbbaale beneen ndongo wala ñaari ndongo te yëguloo ko kon yooyu ay mbir la yoo xam ne warees na ko waras na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye sinon ñu jox di jub loolu it loolu dama ci dellusiwaat ni ma wax ak waajur waxal ñi nekk ci environnement daara parce que daara ji su fekkante ne seen Alioune Badara Wade mii mooy mudir bi mën naa am dañuy gis ne xëy na parent bu ñëw ci moom lay jaar fekk amul comptabilité boo xam ne bi lay jaar ñu ne ah ah oustaz day gis ne bi mu sol wala ah, mbaxare bi mu sol bon oustaz wala oto bi mu am oustaz dañuy nax fayuñu fekk ne léeg li andi problème bi mooy waajur yi jëloon engagement mataluñ ko su ko defee nag oustaz it moom it fay ya le 10 la waroon a fay bu dem ba le sëriñ daara bi nga xam ne moom it xëy na yéenam sellul wala koom-koom rek lay xool hmm. day daal jël machine kalkinam wala portable am ah, daara ji téeméeri xale fi nekk xale bu ne juróomi junni wala xale bu ne juróom benn junni kon dépasse bi li la doon am na ñu koy kalkin sax loolu xew na ci daara léegi ñu ngi koy def ay kalkin sax di ko ci groupe whatsapp bi ah waa léegi kon sëñ daara yi léegi kon dañ ñuy nax léegi waaw ah, daara dañ ñuy waaw nangam nangam demewul noonu de daara nit ka yàgg de dem ba am barke boo xam ne barkeb alxuraan boo xam ne la muy am way juri xale joxuñu ko ma gis naa fii ay seen daara yoo xam ne oto yooyu yor yeneen ko jox seeni doom sax jàngale jàng seen doom jàngewuñ ci daara ja gis naa fi seen daara yoo xamante nii keneen yóbbu màkka tey jii nii benn doomam jàngewul waaw boo nee kon la fiy ñëw moom moom la oustaz def lii bàyyi ñu nag loolu loolu it mat naa bàyyi xel te jàpp naa ne mu diir yi war nañ ciy waxtaan ak seen daara xam nga mënoo nga toog ak mboolem seen daara yi daal ni parent def diw daa néew doole du fay ah xale bii diw baayam daa faat ma loolu mënoo ko loolu kon sutura amatul waaw boobaa sutura dootul am su ko defee loolu ay maanaay loo xamante nii ba maa ngi bëgg a guddal bëggoon naa ñu ñu ñu bàyyi ko ci xel baax bi ci des nag moom damay tëjee ci seen daaray sëriñ daara na yëg mi aw sas wu mag la yor yaa xam mu dir nga jàppe sa bopp yaa xam daga ngaa yor ab di jàngale sas wu rëy nga yor sas wu rëy mooy lan jullit yàlla yi dañoo am ci confiance wóolu sa xam-xam wóolu sa yar wóolu sa teggin ñu jël seeni doom yi ñu gën a fonk dénk la ko yow am nga responsabilité bu mag faw nga organiser wu gis nga dem dem mënta ñàkk waaye xew yi daa bëri ku koy topp doo toog te ko toogul doo mën a liggéey dara sëriñ daara bi mu am principe. faaw nga am principe mais su fekkee da nga ni ngénteelu am sa biiri mbokk ak say xarit nga dem aywa ceetal gu am nga dem euh, laa qadar laa xew ya nga xam di xewu jàmm lu am nga dem kañ ngay toog jàngale. sëñ daara day am principe yëg ni lii ñu ko yan lu diis la responsabilité parce que moom yar xale yi warugaram la wareefam la jàngal xale yi ware wareefam la orienté xale yi wareefam la waaye taxawu xale yi wareefam la te moom ñaari nit ñooy xuloog moom ëllëg. mooy sëñ daara bi la joxoon doomam afa afa parent bi la joxoon doomam bu ëllëgee ngeen layoo yéen ñaar waaye doom ji la joxoon bu ëllëgee ngeen layoo yéen ñaar kon it waaye ki nga xam ne mooy jàngale war naa bàyyiwaat xel responsabilité am. maa ngi jégalu ma leen ne coow li kon faaw noonu sëñ daara yi ñu gën a góorgóorluwaat gëm suñu bopp ci doylu doylu doylu parce yow. jugoo pour pour àdduna yàlla moo la tax a jug ki yàlla tax a jug nag faaw nga doylu boo bëggee doo dem boo séenee ne doo dem faaw nga gore doylu alquran képp ku koy jàngale te doylu woo doo toog faaw nga doylu su ko defee sëñ daara yi suñu góorgóorloo seen yitte yëpp nekk ci jàngal xale yi yar xale yi defar xale yi amaana incha allah yàlla dimbal leen ndax alquran moom daara alquran ñetti élément rek la bi ci jiitu mooy sëñ daara bi bi ci topp mooy wayjur yu yóbbu doomam ci daara bi ci topp mooy xale bi su fekkente ni seen daara ba la mu war a taxawee taxawee na ko a taxawee mu taxawee ko noonu bu boobaa toujours daara ci ndam lay am daara day avancé day jëm kanam incha allah su ko defee ñu gën a góorgóorluwaat ñu nekk ci daara dalal seen xel ni incha allah yàlla boo xam ne inna la yudiu ajra man ahsana amala amul kuy def lu baax yàlla sax même bu wayjur yi sax buñ ko gisul ndax léeg-léeg nga dajeeg ay wayjur yoo da ngay waaye su boobaa yi xamal ni yow siqoog waajur yow yàlla nga siqal lu waajur yi moo la tax di xëy moo la tax di gont yàlla moo la tax di liggéey subaa la nga ci ay cas yoo xam dana metti waaye bu mu tax découragé nga découragé wala nga deltu ginnaaw ndax liggéey bi nga nekk da nga nekk di sàkk ngërëmu suñu borom te damay wax ni lu mel ni jàngale alquran lu mel ni liggéeyu jaamu yàlla loolu amul retraité la nga ca man rek boo demee ba nga xam ne tëdd sax di téye laatee nga man nga def ko ba kër gi wujj suñu borom su ko defee xëy na ngir bàyyi xel jamono jeeg nawet bi incha allah noo ngi taxawal kàddu yi foofu lépp lu ci jub suñu borom la bàyyi ko lépp lu ci dëng suñu la bàyyi ko ñu ngi jéggalu mbooloo mépp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu inna وهو أعلم yaakaar na yow yal na la alquran taxaw yàlla mën na koo yal na ko yàlla def moo tax ñu wax ne bu ñuy jàng alquran boo mënee jooy jooyal soo mënta jooy jooy jooy ba jooy ndax romb nañ ñi nga xam ne dañuy jàng alquran di jooy ëllëg bu ko peesee ak ak ak ak peese bi nga xam dañoo pee ci xare romb nañ day wax ndax maag bu alquran maag ñu bàyyi ci xel baax a baax kon alquran lu am solo la léegi dañuy daw rek jëkkante waxtu bi comme ni ma ko wax sànq dugub bi ñuy wax soxna ak sa sàmba sàmba noonu la sàmba ak i boobu soxna ak sa sàmba mi ngi noonu yéeg macha allah di ree ma waaw macha allah soxna ak sa sàmba ak yow soxna ak sa bismillah فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين mooy ñi ngeen gis ñi ñuy tànn juróom benn fan mooy ñi nga xam ne ñoo war di ñoo war jotaay bi ñoo ñoo lañuy préparé pour ñu ñëw ñii ngeen gis ñuy jàll ko ba léegi ñoo seen mbokk yi nekk daal nga xam ne mokkalagul waaye dana koy yoon wax yàlla def ci kawam àggale da mokkal bu bëri léegi ñoom ñooy barkeel Serigne Daouda Wade ndax wax naa ne doon na xale la ñuy wax waaye damay jàpp ne ay sëriñ lañu ndax ku mokkal alquranu karim kooku dootul ko ñu kii loolu moo tax ma ne damay wax Serigne Daouda Wade ak soxna ku ja Samb ak Serigne Mame Cheikh Ndiaye ak Serigne Baye Mor ak soxna Afsa Ndiaye ak xam naa bu ci kenn ne oustaz bi kenn bu ci nekk bi nga mokkalee daara jël la yóbbu ak na saytu wa ba wéral ne kii ku mokkal la ndax bu doon ñoom dañoo mokkal rek waa daara ji daara ji rek ne mokkal na téye ko bi mën nañoo am ay jiitu jaaxal waaye bu ñu daree ba na di jël yóbbuwaale yeneen daara prix daara na ba mu leer naa ñu sugal na kon loolu ndaw léegi nag ñoom ñoo ne su fekkee ne pare na ñu ci biir mën na yow dugg balaa ko duñ jox sëriñ Aliou Wade wala xamal ko fenn ci macha allah ñu ji ma jàllale kilifa yi nga xam ne di jadaay jëli ci ay barab yi xamante ko su defaree jox sëriñ Aliou Ndiaye di kilifa ci daal ma dugal xale yoo wax euh, nga xam ne ñoom ñoo waral bis bi.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 Mahathir Allahu Akbar Allahu Akbar baax na baax na bis bu tedd bii te mooy bis boo xam ni suñuy doom ak suñuy jarbaat ak suñuy sët ñoo ci mokkal teerub suñu borom bi subhanahu wa taala ñu leen di feetal waaye di leen sargal tax ñu wutal leen bis bii ba moo sabab suñu teewaay kenn ku ci ñun ñuy sant suñu gan yi nga xam ne jóge nañ fu sori ñenn ñu jóge ci biir dëkk bi ñenn ñu jóge ci biti dëkk bi ñenn ñi sax fi la ñu fanaan ngir teewe jataay bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan tànk yi nga xam ne dox nañ ko ba agsi fi yàlla bu mu neen di ñaan jataay bi yàlla ko suñ boroom boole ci jataay yi nga xam ni euh, dafa leen di tagg waaye suñ borom daf koy gërëm xanaa dañuy njëkkante waxtu bi rek ngir présenter suñu gan yi nga xam ni teew nañ fi di ci jiital sunu wayjur sunu sëriñ ak Cheikh Ngañ Wàdd nga xam ni moom fii la fanaan ngir mën a fekk ci jataay bi kenn ci ñi nga xam ne ñu ngi tari di setam direct nga xam ni moo jur wayjuram mu jigéen mu bàyyi ko ba Tuubaa Njenne fële ca Saalum ngir teewe jataay bi ñu ngi koy ñaanal di ko dalal waaye di dalal kenn ci ñi nga xam ni ay keno lañu doon ci daara ji nga xam ni borom daara ji di Serigne Massata Ndiaye ak Cheikh Ahmad Dam Ndiaye yal na ko yàlla dolli yërmande ak jéggal moo doonoon seen seen euh, kilifa moo doonoon seen wéeruwaay muy sëriñ Baye Ndiaga Diop ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yokk dëgër waaye yokk fanam Euh, may ko wér bu baax a baax ndax ku am solo la ci ci euh, fii ñu nekk ci gox bii waaye di ci teg kenn koo xam ne moom it kenn la ci daara ji ba tey di Serigne Baye Talla moom it di mag ci famille bi nga xam ni sëriñ Masata mi borom daara ji ak sax ma Dame Ndiaye foofu lañu bokk muy famille njaayoon bi sëñ Aada wax na ko léegi ni moom la desee ci papa ci wayjur bu góor ci mag kon ñoo ngi koy ñaanal moom it mu yàgg yàgg lool ci jamono ànd ak wér di ci teg Serigne Mor Wadd Njaay moom it di rakk ci sëriñ euh, Baye Talla moomu wala di doom ci moom waaye di mag ci euh, njabootu njaayeen gi moom it mooy xalifa ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg doon xalifa te yàgg leen a jiite jiite yàgg leen a tettal Serigne bàcci wàdd moom it teew na fi ñu ngi koy ziara di ziara sëriñ Abdou Chakour mu jege ba nootoo moom it di goro ci al ustaas bi nga xam ni mooy mu daara ji ustaas Sidi moom it teew na fi sëriñ Birane Ndiaye teew na fi dëkk fii ci Thiès ay doomam yëpp mokkale fii ci daara ji mu am na fi ñaari doom yoo xam ne fii la tare ba tey doomam bokk ci ñi nga xam ni moom it mokkal na moom it ñu ngi koy ñu ngi dalal du ma ni doomam direct waaye mën naa ni doomam la Serigne Omar Mbaye bàyyi ko ba Ndaxaar Mbaye ak ñi ma àndal ñëpp gis nañ ko ci jataay bi ñu ngi koy dalal waaye di dalal mbooloo mi nga xam ni ñu ngi tuddee daara sàkku xam-xam ci keppaaru al oustaz Lamp njaay bi nga xam ni mooy modéré jataay bi nga xam ni bu yàgg ba léegi mu ngi ànd ak ñoom liggéey boobu di ñaan daara ji yàlla suñu borom barkeel di ay mag ñoo xam ni ay kilifa lañ waaye yemuñu ci rek ci ut ci jàpp ni seen mag jëm nañu mag jàng wees na ci ñoom waaye dañoo wëlbatikuwaat di dabuwaat bu baax oustaz Lamine di leen ci jàppale. ñu ngi leen ñaanal mbootaay mbootaay googu wala jët wala mbooloo moom yàlla suñu borom def ci barke xam-xam boobu yàlla na ko suñu borom barkeel ñu ngi ciy tudd rek soxna Seck Cissé bëgg fàllu dañ koy dàkkantale ak Serigne Ibrahima Ndiaye ñooñu ñoo jiite mbooloo moomu teew nañ fi gis nañ leen waaye al oustaz Abou di sëñ daara bu mag dëkk fii ci Mbourde di jàngalekatu alxuraan bu siiw fii lool waaye di wëllëre oustaz Sidi mi nga xam ne saa yu nekk ñu ngi bokk ay jataay di bokk ay idée di bokk di waxtaane loo xam ne day jëmale alxuraan karim ñu koy dalal ci jataay bi ahlan wa sahlan waaye al oustaz Mouhamed Thioune moom it fàttewuñ ko teew na mu ngi ci jataay bi ñu koy ziara moom it di sëñ daara bu mag gis nañ fi tamit suñu baay Abdoulahi Wadd di chef de quartier Ndaxaar Mbay nga xam ni boroom kër gii di Masata ak mboolem famille Njaayeen bi foofu mooy seen cosaan moom mooy chef de quartier bi bàyyi yittey gépp fexe ba mën a teew ci jataay bi ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam ak wéral cëram ñu ngi koy dalal waaye al oustaz Cheikh Ndiaye Sabaate docteur moom it teew na fi ànd ak oustaz Al Habib Ndiaye mi nga xam ni mooy yor daara Cheikh Madame jële di doomam wuutu ko fa tawu liggéey ba nga xam ne bu yàgg ba léegi ñu ngi amal ay liggéey ci biir ngir waajal bis bi moom ak al ustaad Adama Bey ñoom ñëpp teew nañ fi Serigne Moustapha Wade moom mi teew na fi moom nag mooy ki nga xam ni moom mooy trésorier bi nga xam ni euh, moo yor liggéeyu mbootaay bi génnee ci daara si Ahmad Dame Ndiaye moom moo yor mooy seen trésorier moo yor seeni euh, koppar euh, di Serigne Moustapha Wade ñu ngi koy ziare bu baax a wax euh, di ko ñaanal moom it ndax ku am solo la ci ci ci ci ci daara ji daara yëpp amañ waa daara yëpp amañ nañ ko cant rawatina daara ji ndax lu xew moo fi njëkk moo fi mujj lu xew ci yeneen daara yi kazalik yitteem yëpp ci alxuraan la ko la ko la koy jeexal sëriñ daawuda sëriñ daam zu de sëriñ daam daam suur moom it teew na fi waaye sëriñ Mor Kab bi teew na fi ñu koy dalal waaye di ziare suñu ustaas suñu sëriñ ak Cheikh Abou Bakr Ngom di borom xam-xam bu mag bu siiw fii lool yàgg fee def ay waxtaan yaakaar naa mbooloo mi buñ ko bu ko ñëpp xamul it mën naa ne ñu ko fi xamul bariwul ndax daaw rek defal nañu fi thème bu am solo tamit incha allah ñu koy xaar mu war ñu fi defal thème bu am solo incha allah ñu ngi koy dalal di di dalal tamit al ustaad daam luum moom it teew na fi moom lañ waroon a njëkk a lim ndax moom mooy koo xam ne moom mooy mooy lépp daara ji ndax saa su nekk mu fi ñëw di nemmiku daara ji yemul ni rek dama xat sama liggéey bari na waaye saa su nekk ma ngay nemmiku daara ji di nemmiku ndonga yi di nemmiku saa sidi di nemmiku mboolem ñi nga xam ñu ngi liggéey ci daara ji waaye it ñu ngi koy ñaana suñu borom may ko gudd fan ak wér waaye barkeel ab liggéeyam xalifa Sëriñ Daawda Mbay duñ ko <laughs> la ci ñii daal ci ak mën a ci daptu ci lim wala boog ci takk moo ñi nga xam ne tudd nañ leen fi waaye ñi ni tudd ñoo ëpp ndax soxna yi rek ñi fi teew ci way jur ñi nga xam ne ñoo mokkal di doon ab lim takkoo takku mënuñu koo jàllale waaye dañu nañuy seet rek ñenn ñu ñu jàllale su ko defee ñu yóbbaale ñi ci des kon duñu def lu dul taxawul foofu ci kàddu yi ndax waxtu yi xaw naa xat su ko defee dañuy jox Serigne Adama Ndiaye euh, su ko defee dañuy yamale foofu kàddu yi ndax mook sëñ Ahmad Dame Ndiaye ñoo bokkoon doon jàng ba ñoo am na kaamil boo xam ne ñoo ko bokk bind ku ñu wax sëñ Mbay moo leen jàngal ñu doonoon ay doomi ndey sëñ daam fonkoon ko lool moom it mu fonkoon sëñ daam lool amul jataay bu suñ daam mosaana am wala xew-xew lu mën a doon lu dul doo doo dem fekk ko fa doo dem bàyyi ko fa sooy ñëw fa nga koy fekk waaye sooy dem fa nga koy bàyyi ñu jaxasoo woon lool defandoo lépp moom lañ ni dafa nekk ci ay tolof tolof ci wàllu wér-gu-yaram ñuy sàkku ñi fi teew ñëpp ñu ñaanal ko suñ borom delloowaat ko wér-gu-yaramam googu ci nu mu gën a gaawee suñ borom am na kàttan gi mën na ko ñu ngi sàkk ku fi teew rek loo man ci alxuraanu karim nga jàng ko yéene ko ko yool ba wala fas ñaan boo man rek nga jàng ko yéene ko yool suñ borom delloo ko wér gi yaramam kon loolu moo nekkoon kaddu yi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmani rahim كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الآيات الدنيا على الآخرة على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صباب شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب سوء العذاب وي يذبئون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم lu délégation bi ñu àndal yëpp di ci jiital sëñ Abdoulaye Diakhaté ak sëñ Idrissa Kane ak Cheikh Jaxate ak Ahmed Jaxate ngir day mel ni dañ koo bàyyele sëñ Daam Njaay bis bi Daam Njaay mooy ki soxna daara ji yàlla dogal it ñu ndeyale ko soxna su Jaxate day mel ni ñaar ñooñee day mel ni ñaar ñooñe ñoo sos daara ndax diirub diirub ñuy nekk li ma fàttaliku mooy bi Serigne Saliou Touré yabale ndaw ñëwee Dakar bi ba léegi tey jii ba fi ñu toll ni nii ndab liy jóge ci kër gi mu ngi ñëw ci kër gi ba léegi ci daara ji te ñoom ñaar ñi ko sosoon ñëpp mu sëñ daam ak soxna su dem nañ waaw bu nee ñëw ñaar yoon dina ñëw waaye bis amul benn bis bu muy jël loolee dara gën ko te kenn ku ne xam na li yonent bi salaam wax ci dundale dem na ba wax soxna Fatima ne ko donte da koy jël xar tàndar ma jox ko koo woo si njëg bu nekkoon safara sa borom na ko jéggi indi ko àjjana loolu dara gën ko rëy soxna si mbokk yi. ci si njët sëñ Ablaye Jaxate ñoo ngi feeñe seen mbégte ak di feddaliwaat kóllëre gi ak di fas yéene ànd ak yéen ndax kat sëñ daam yaag sëñ siidi démb ci jotaayu kamil bi ñun lañ yëg bis bi donte ko nag bataaxal bi egg si noonu ci lañ ne mënuñu wa mënul ñàkk foofu ñu waajal ko donte ko nag egg si woon na ci Adama waaye ci kilifa yi nag maanaam démb lañ koy doog a jot mu bette lool waaye gé bette gam gette téewul dañu ni dañ ci def suñu war warteef ndax am loo xam ne jarul xaar rawatina bisu mel nii di sant seen daara yi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn di leen bëggee it ak nja ak fi tool yëpp di bëgg lool nag di wax ni oustaz bi doon waxtaan léegi sëriñ bi ah suñ Babacar Ngom maa ngi dégg tur wi waaye macha allah macha allah dañ toog rek ngi toog rek di ma xam naa ko tëb dana dëkk tëb dana waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi mbokku téléspectateurs yi euh, RTT TV ñoo leen di nuyu di leen ziare di nuyu Serigne Modou sekk ci taxawaayam bu am solo bi nga xam ne nii bépp barabul islam boo dem rek boo demee fekk ko fa mu am fa taxawaay boo xam ne nii taxawaay bu mat sëkk lay doon euh, li nga laaj nag di laaj bu am am solo euh, muy tey jii ci conférence bi fii ci Mbour Oustaz Adama Ndiaye euh, di imam di boroom xam-xam di bokk ci Touba ca kanam waaye bokk ci kuréel gi ñuy wax scientifique et culturel muy koo xam ne nii mboolem formation daara yi nga xam ne nii ñu ngi koy amal ci Touba euh, moom moo ne ca bopp ba li ci am taxawaay bu mag a mag a mag ànd ko sëñ Mamour Mbacke euh, moom moom sëñ Modou Bousso Dieng ak euh, sëñ wu Diakhaté ak mboolem mbokk yi mu ko àndal yëpp rek euh, tey jii nag mu am conférence bu am am solo boo xam ne nii tey mi ngi koy amal fii ci Mbour 1 ci booru centre centre mi nga xam ne nii Euh, way way laago yi ñoo ko moome ñu ko fi amale tey jii euh, bi ñëwee nag fekk nañ fi mbooloo mu takko takku waaye waa Touba ca kanam itam kenn demu ñu des ndax euh, ñoo ngi ànd ak suñu As Dieng nga xam ne nii mooy bokk ci bokk ci kuréelu scientifique et culturel ak suñu Abdou Diop mi nga xam ne nii moom itam ci grand collecteur yi la bokk waaye mu bokk ci ñi jiite socialu Touba ca kanam ak Serigne Sidaat Diop bokk ci Euh, waa communication di ko ko am am solo moom itam ci liggéey bi euh, léegi nag si Adama Ndiaye euh, di sunu wëlëre woo xam ne nii ñu bokk pas-pas bokk liggéey bi mu yëgal ñu day conférence bu am solo bi nga xam ne nii moom lay amal fii tey mu mel ni dafa am tey ci tout tànk yi mu doon jàngal ñeenti xale yoo xam ne nii dañoo mokkal alxuraan muy lu jafe di lu yéeme di loo tawféexe loo xam ne nii euh, bu àdduna bi amee jàmm rek yàlla nga ko jaarale ci ñooñu ndax euh, tout tànk nga tàmbalee ko basin Euh, ba baqara ba ba ba jeexal alxuraan kooku moo waxuma ñu yem ci loolu waaye mu koy topp di ko topp di ko topp ba mokkal ko loolu karaama bu rëy la karaama la ci ci ci tout tànk bi ko doon jàng waaye karaama la ci ki nga xamante nii Euh, moo leen yore di leen saytu di leen toppatoo ba yàlla dogal ñeenti ñeenti tu tànk tey ji mokkal alxuraan bay tari tey jii loolu doon lu am am solo doon bis bu rëy rëy rëy doo xam ne nii ñu umma islamique bépp bég nañ ci xoli jullit yëpp sedd na ci euh, rawatina nag euh, xoli taalibe yi Serigne Touba yi nga xam ne nii dañoo bëgg alxuraan ngir jëmi Serigne Touba yi nga xam ne nii euh, alxuraan jaralaat na ko lone ak sunna kon ñoo ngi wàcc foofu suñu kàddu rek Serigne Modou xam naa ba loo ci dolliwaat rek. waaw Touba ca kanam ak taxawaay bi mu war a am ci màggal gi mën naa ni loolu moom ñoom mosu jóg seen taxawaay mosu jóg ci ci ci Touba ndax Touba doo nga leen tax a juddu Euh, ci la ñu màgg ci lañuy ba toll fi ñu toll nii seen lépp itam Touba lépp loo xam ne nii ñu ngi koy laaj ci addiya di ko dajale ci di ko dugal jaar ci compte Sëñ Touba yi lépp lu ñëw Touba doo ko tax a ndax ndax ndax kat Touba ca kanam la ñu wax kon Touba ca kanam nag moom lépp luy jëmale Touba ca kanam rek ci loolu lañu nekk. Euh, yaakaar naa ne nag jamono yi ñu toll nii moom euh, jafe-jafe Touba fi ne nii mooy ñaari ndox yi rawatina màggal gi ñu dëgmal nii. Eh, di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ba taalibe yi man koo defee ni ko sëriñ bi bëggee te ñu dajee cee ngërëmam ci barke Seexul Xadim eh, mu mel ni eh, depuis le 23 juillet ba léegi mbooloo mi ñu ngi ci waa opération wàllu ñu ngi ci ndox mi di di di di wiide di nga ci di pompe ngir mboolem ñi nga xam ne seen i kër génn nañ seen i kër mën a dellu siwaat dalal seen i gan mbedd yi nga xam ne nii kenn mënatu fa woon a jaar eh, yooyu yëpp yaakaar naa ni yu ci bare bare bëri ñu ngi ñu nga ca ba nga xam ne nii yaakaar nañ bari ñu àgg ci bis bi bu soobee eh, ndox mbedd yu ci bëri dees na fa mën a jaarat nañ fa jaare donte ne nag jafe na metti na ndax ku ne xam na ni fan yii moom taw bi daa tegaloowaat depuis Euh, depuis le 15 août ba léegi taw yi dafa tegaloo euh, guddi ak bëccëg suba ak ngoon Touba mi ngi taw waaye taxul ñu taxul waa wàllu opération wàllu tayel wala ñu yox yoxi waaye guddi ak bëccëg équipe bu wàcc yi ba leen yéeg loolu lañ ko fas yéene doxale ñi nga xam ñoo ne ci ndoxum naan mi tam forage yaakaar naa ni ne lu mat lu ëpp fukki forage fi ne nii yëpp ñu ngi dox fi ne nii ba ndox ma fi ne nii yaakaar naa euh, ma ngay ball bu baax baax baax a baax am nañ am nañ njort ni daal manque manque manque ndoxum ndoxum mu ñu jëfandikoo moom euh, du am du am ren ci màggal gi insha allahu rabbi te it ndoxum taw mee tam bu ñu yàlla suturaalee ba mu fend lu mat ñetti fan dong lu soob yàlla ndox mi dina jeex tàkk ndax fépp foo xam ne nii gars yi dem nañu fa ba lañ faa ndox mi dafaa jeex tàkk ñu dindi suufu ban ba def fa suuf bu bees tax bu dee foo xam ne aajee na dalee ñu def fa ay fer ak ciment dale ko ba nga xam ne nii euh, ndox mi bu ñëwatee day mën a barastiku dem ci dem ci canal bi wala mu dem ci euh, rajo yi nga xam ne nii moom la def ci fu ko jege incha allahu rabbi waaw. Mhm. jërëjëf sëñ Modou ñoo ngi lay sant baax di sant euh, mboolem ku fi teew rek tey ndax tey képp koo gis mu teew fi rek alxuraan moo ko fi te loolu jéego bu ci waaye dox ala euh, dikk rek yàlla na doon sax njéggal tey ëllëg te màggal gi yàlla yóbbuñu ci jàmm ci barke Seexul Xadim yàlla nañu ko jekku jekku ndigal li ci barke Sëñ Tuubaa barke am sawa Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi loolu te wér jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baxda ñoo ngi siyaar baax mbokki jullit yi mbokki taalibe yi baax baax di bëgg télé bi RTT di seer jëwriñ ju mag yi mu sëñ Modou Seck waaw sëñ Modou euh, wax dëgg yàlla sëñ Sidi moom jàmbaar lool ci daara ji ndax euh, jël ñu jox la xale boo xam ne xamul dara nga tàmbaleeg moom ci jël ko mam i ji ba jàng ba wàcc alxuraan loolu rek daa loolu rek kéemaan la rawatina nag mu jàng ba mokkal alxuraan mën a tàmbali bàqara ba naasi tàggagu ci dara rawatina nag loolu doyu la waaye nga jël ko jébbalaat ko yeneen mbokki seen daara yi ñu diglu leen ba saytu seen alxuraan ndax xale yi noonu lañ leen defal sëñ Souleymane mii daanaka am na ci xale boo xam moom moo ko téyel alxuraan ak yeneen daara yi ci yu bare bare ah loolu nag wax dëgg yàlla mbégte mu rëy la loolu moo moo waral mboolem sëriñ daara bu nekk ci dëkk bi rek day day daal di ñëw fekk si ndaje mi teewlu ko teewluwaat xale yi boo gisee lu tax ñu woote ndaje mi nag maanaam pour wan jullit ni leen ñii seen mokkal alxuraan lu wér wér la lu wér wér la parce que mokkal alxuraan dafa yéeme am ñoo xam boo leen ko waxee rek ko duñ ko duñ ko duñ ko gëm duñ ko gëm waaye bàqara banaas yi xale boo ci tiim ci xa ñett juróom benn xale yi maanaam koo ci cuqa ab ab aaya rek mu taral la foofu jëm jëm suuf waaw kon loolu lu yéem yéem loolu suñu mbégte la ñu ñëpp suñu mbégte la ñu kon day ñaan xale yi yàlla barke leen bu baax a baax xanaa dama wax rek sëñ Souleymane moo àggale bisimilah waaw Mar Seck ñoo ngi baax di ziar di jaare tamit waa daare Cheikh Issa Diène si njiital sëriñ Sidi Diouf ak nijaayam sëñ aadama Ndiaye ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi si daara ji di fi liggéey di nuyu tamit sëñ Baye sañ sëñ Mouhamadou Yacine Diop mi ñu àndal sëñ Abo Mbacke ñoom lan ànd ñëw si jotaay bi li waral liggéey bi nag mooy sëñ euh, Sidi dafa nekk jàmbaar ci liggéey bi ndax kenn ku ne xam nga ne at moroomam ni mu jegeyante <coughs> nga mën a liggéey ba génn si lu mat ab lim lim boo xam ne dañuy tari alxuraan tari bu leer nga xam ne danga leen di yebal ci daara ñu am fa benn fan wala ñaari fan ñu déglu leen ñu tari kaamil ba mu jeex te ñu néewaana ab donga tari si ba ñëw ñu ne la gàgg na ñaar wala ñett kon xam ne kon loolu du mokkul caaxaan mu nekk si diggante ay at yu gàtt rawatina nga ci génne ab lim loolu wax dëgg yàlla ku jàmbaale tey képp koo xam ne tamit fi mu jëlee liggéey bi ak tey jii fi mu àgg da xam ne wax dëgg ak liggéeyam Eh, ku jàmbaar la ci eh, boo gisee na ñun ñu sawar nii si ñëw teew fi sëriñu daara yëpp bàyyi seeni liggéey eh, kenn ku ne xam nga ne dimanche liggéeyu daara la ñëpp bàyyi seeni daara bàyyi seeni mbaar seeni xalqa ñëw wéttali ko si jotaay bi loolu day wane ne pas-pasu sëñ Sidi Diouf la ku am pas-pas ndaxte moom i nii la mel saa yu ne lu waaye xewle da ngay gis kenn du ko jiitu ci sa daara waaye bu xew a jàllee tamit ñaari fan ñett fan mu daal di jël téléphone kazaaka Touba li muy xat xat xat boo demee day bëgg nga ñëw këram nga xam ne si màggu suñu Abdoulahat geeg yooyu yooyu yëpp si këram la ni di teewe ndax mooy jiite ba dem ba Touba turandee sëñ Siidi mu sëñ Abdoulahat moom wàllu alxuraan ci ci loxaam lañ ko teg kon noonu li war a daan ñëw tey fii du dara lu dul eh, taxawaayu sëñ Siidi Juuf ndax lii moom moo nu ko ji tey moom moo ko moo nu ko lebal daal moo tax ñëw fekk ko moo tax bin ñëwee tamit ñu fekk mboolem sëriñu daara yi nekk Thiès yëpp waa rabitatu madaarisil quran sëñ Mor Khary Gueye jiite ko ñu ñëw ñun mbooleem ñëpp ci leen bokk waaye jamia bi nga xam ne sëñ Ahmad Daam Loum moo ko jiite moom it ñu ñëw fekk ko fi mboolem sëriñ daar yi nga xam ne ñoo nekk diggante parcelle ba cité Senghor cité Lamine ba mboolem Thiès rek ñoom ñëpp ñëw wéttali ko danoo xam ne kon lii bu doon laneen la kon ñun duñ fi dajuloo nii tey duñ fi toogee nii bàyyi suñu taab yëpp ñëw toog fi ñaan yàlla xal yi nga xam ne mokkale na fi alxuraan yàlla na yàlla barkeel seenum njàng ñi nga xamee ne tamit ñoo ngi toll si wàcc bay toppaat yàlla na yàlla mootali seen alio kon ndax loolu daal la noon kii rek sëñ Mouhamed Seck ñoo ngi lay ziar baax baax yéen di leen ziar si seen liggéey bi ndax lii tamit yaatal liggéey la liggéey boo xam ne tey ji ñoo ngi cib ruq maa ñu bëri xamuñu ko waaye ngeen mën koo génn ba waa Thiès yëpp teg ci seen bët ba mën a xam ne ah man mi kat bëgg naa sama doom jàng te daare RTT TV mu doon wane seen njàng mi rafet na tey mokk na ndaxte gis nañ fa lu nu doy loolu su boobaa ñooñu buñ ñëwee bépp xara buñ fi jàng yéen ñi seen waal dina sa nekk ndaxte lii lépp ci jottali mission bi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam da waxoon na balixu anni walaw aaya jottali leen ma sama téere bi doonte benn aaya la jottali googu na kenn ku ne am nga sa responsable ñi ko mën a jàngale nañ ko jàngale ñi ko mën a wane nañ ko wane ñi ko mën a publicité nañ ko publicité ko defee ku si mën a jot rek da xam ne tiyaa boobu yooyu suñu borom dina si def sa kii kon ñoo leen ziar bu baax di ñaan yàlla yàlla barkeel seen télé bi yal na ko yàlla yëkkati ba mbooleem fi ngeen bëgg mu àgg fa suñu borom yëkkati fa gën a kaw foom kon loolu daal mooy kàddu yi nekk. wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم صدق الله ما شاء الله بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ما شاء الله صدق الله العظيم الرحيم والسماء والطارق ما وما هو بالنصر إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق الله فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن ذنبها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربتنا صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما kasabat wa alayha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته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 sadaqallahul azim shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim tanzilul min allahil العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على عن الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم رجلان يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Sadaqallahul azim. Minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوقينا إليك هذا القرآن إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أقد عسر كوكبا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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يعقلون لها دها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريحا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادل sadaqallahul aziim mina shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim laa yuhibbullahu al-jahra bis السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله بالله ورسله ويريدون أن يفرحوا بين الله ورسله أن يفرحوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العصام عطلت وإذا الرقوس قصرت وإذا الرقوس قصرت وإذا البقار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت sadaqallaahul aliim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax di julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa kàddu gi nag du gudd kàddu yu gàtt lay doon xam naa li wolof di wax ni juróom-ñaari chauffeur bu duggee ci benn oto ku ne yor permis de mën a dawal faw kenn la jox oto bi mu dawal ñi ci des ñépp toog jël seen place loolu moo tax ñoom ñépp ñu tënk kàddu gi ni naa ko jël ci seen kàddu doonte xaw ma seeni jëmm nag maa ngi leen di sant ci loolu kii ma àndal jóge Kër Màlle di ngañ mooy way juru maam Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye mii doon tere alquran wolof nag nee na hasard amul maam Cheikh Ahmed Tidiane yi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane al maktoom la ko way juram tudde muy sëriñam bi mu ganee àdduna daf ma ne sama doom bii gane àdduna di góor maam Cheikh Ahmed Tidiane al maktoom laa koy tudde yàlla nangul ko ñaanam nag ak yéeneem ci turandoom bi mu waree dugg a jàng mu ni ma balaa muy jàngi leneen dinaa ko dugal mu jàng alxuraan mokkal gi nag waxu ko ndax ak jàgle la kon nag bu yàlla dogalee ngañ dugal maam Cheikh Ahmed Tijaani mu jàng alxuraan fii la jànge alxuraan fi la mokkale kon sant yàlla la ak jàgle la nag bi ma ciy teg mooy Tiwaawan lañu ñu dëkk jóge fa kenn desul Mortala Njaay mi ma jàkkaar lool kii doon tare di maam Cheikh sëtub alxaaji Modou njaay la kii xam na li may wax moom taala mi toog kii bu musaana jóge cees lu mu indi ci wàllu bagage di ko jaay palaasu maam Cheikh Ahmed Tijane mi la koy teg man la koy dénk maag booy juru maam Cheikh kon hasard amul bi ci des kii ko jàngal jëfandikoo ci sunna na yàlla waxan Seyduna Muhammad ba mu wàccee ci moom alxuraan ba mu wattu ko daf ko ne demal ca Ubay ibnu Kaab nga jàng alxuraan mu déglu la te booba xam nañ Seydina Muhammad jàng na hmm? ndax yàlla moo kon sa nuqari uka falaa tansa lu nu la wax yu rek jàngal la ko duutoo ko fàtte kon bu koy naan demal ca Ubay ibnu Kaab nga jàng alxuraan mu déglu la seedee taxan mu koy def maam Cheikh ku ne xam na ni mokkal na waaye bu sëriñam dëkkee Tiwaawan ñun ñu jóge Tiwaawan mu mokkale Cees nga yebal ko Tiwaawan ni ko demal nga jàng fa alxuraan ñu déglu azar amul nun nag danoo bañ la sëriñ Mansour waxan dal nu jërëjëf da doon wax ni bu la lu leen nit defal ci teraanga nga guuxi lex ni yeeyoo naa ko lee nga nu mu tuddati kàddu yépp kàddu yi cant la di juróom benn ñi fi tari nu jox ma kàddu gi ma war a sant kii nga xam ni moo leen jàngal mennum kaan ci famille dina ramu juróom-ñaar fukk ci côté yaayam juróom-ñaar fukk ci côté maamam te kon ña ngi ca biir nun maam Cheikh ku ma am ci wayjur ñëw nga tey ànd ak wayjuram wi ay maamam ñëw nañu ay yaayam ñëw nañu ay bàjjanam ñëw nañu ndax nag wolof nee na mbuus deful lu gën pepp fu nu mën a yendu tey nun yendu fii ci néegu yàlla bii xale yi di fi tari alxuraanul karim mun noo dem fu ko gën a kawe di jéggulu nag li tax nu yéex a ñëw ngànt la ndax li wolof dex aw cëtëng moo nu dal biig ngañ mi ab kaar la luye ni ku mën a dem nanga ñëw dinaa la paasal aller bu nu ñibbisee kër Màlle dinaa leen teral yéen ñëpp ngir yàlla ak barkeb alxuraan comme gaa yi fooy rek ñooy fooy ci àll bi ba am yu nu jële ci àll ba ñëw ki yàlla dénk réew mi ne deesu na teral leen teral leen waxu naa ko mokkal alxuraan alxuraan 114 saar la 6670 aaya kii bu ko defee ci boppu maam seex ci juróom-ñaari at yàlla na la yàlla fay ngañ wax ni mook parents d'élèves yépp yi jàng fii seeni doom jàng fi ba ñu mokkal ñu kii mun nu koo fay waaye nag bu la nit lebalee loo xam ne mënoo koo fay ci mbaax loo am danga ko ko cay sànni ndax mbaax du jeex ndax kat lu ma waaye man di defal nga ni ko jazaakumullaahu ana xayran fay nga ko ba wis ko kàdduy parents d'élèves yëpp daal moo di ñoom Serigne Mansour da daan wax naan ku sa tuñum kaw dagg sa ëpp law jeex ñun ëwu law rek la ñuy wax ñu ngi nuy ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah jërë ngeen jëf mawsi billaahi mina seytaani rajiim ngañ mii doomam doon tari bu jàngee ci kër gi wàcc na ndax mën njaay mi nga xëy moo ak Njaay ñoo bokk ndey ak baay mu jur kee mu jur xele bi benn famille lii li Moussa Moussa wax sàng bi ma demee Tiwaawan it ba may dem ci sama famille dal dalu ma ci kenn waxtu wu maa nga fa lépp fa la waxtu wu maa nga fa sama lépp fa la nekk waaw kon ngeen xam ni alxuraan moom day du gan ci kër gi moom ndax dëkk ba ma dëkk juróom-ñaari taali jàngu ma nga fa won te téewul maami kii mook sama baay ñu bokk ndey baay maamam daa jël ñetti doomam yóbbu leen génne leen dëkk ba te juróom-ñaari taali jàngoo ca dëkk ba booba kon ko ku ne xam na ne Kaaba Gueye dëkkub alxuraan la waaye daa da a jël génne leen dëkk ba ngir bëgg ñu jàngi yàlla dogal ñu génn jàngi alxuraan ba waaj ñëw li ñu naan melees boobu xamuñu ko li ñu naan euh, karjaat xamuñu ko yooyu yëpp ginnaaw bi fi ñëw bàyyi ma jërëb fanaan ñu fanaan ci ñoom ñu di leen teeru bojji dugub soq wal def yépp mooñ toog leen xaar pour suba ñu defal leen sarax laaxal leen sarax muy waajuram ak waajuru sëñ daam ak wa mbay njaay seen mag ñoom ñett ñii ñu fanaan ci wàcc alxuraan fanaan xam nga moomu mbégte mën naa rey ku ne sa ñetti doom mokk wàcc alxuraan fanaan si nga war a xëy defal leen beernde bàyyi ma jëre yàlla moom ko ci guddi gi moom seen maam yàlla moom ko ci guddi gi kon xam nga ni loola alxuraan moom daa sasu ci kër gi yàlla dogal na ñoom ñii fi nekk nag di gone yi ñoo wax dëgg yàlla fonk nañ ko fonk nañu alxuraan lool déglu leen ngir yàlla déggu nopp doo nga du du jariñ ndeem xol yi nekkul di déglu alxuraan doo nga mën a yeew xolub jaam ba du buur allah bi sikir laay tat ma inal xolob amul lu mën a yeew xolub jaam ba du buur lu gétub turu yàlla turu yàlla rek moo ko mën turu yàlla mooy alxuraan kon ndokk ba yàlla dogalee ñoom ñu ne ci néew ñu ci lenn nag sii mi ab sët la ab sët la yaay mooy magu kii kon sët la di jarbaat ci ñoom yàlla dogal magam ma nga yor daara ca kër saa daara foofu la yor daara ñoom daara la ñu xam xamuñu leneen xamuñu commerce xamuñu lenn alxuraan la ñu xam moom mi ma nga yor daara ca Touba yàlla dogal na ak juboo dox na ci diggante bi ba amul fenn ku ciy def lenn loo nga xamante ni waxoo ko kii kooku ñu wax ma ko muy famille bi yépp nag lépp loo nga xamante ne bàyyi ma jëree la ju bàyyi ma jëree nga meññee jël nañu cër bi jox ma ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon yal na yàlla guddal seeni fon yal na yàlla guddal seeni fon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ngeen gudd fon lool yàgg fi lool amug wéer lool am wërsëg lool barke xaari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na leen yàlla defal jàmm ak salaam mbooloo mi nga xay ñoo fi ñëw nag ñëpp ñi fi dëkk ñi fi dëkkul ñu ngi leen di ñaanal kenn ku ne tànk ya nga jógeen ñëw yal na ko yàlla def ay tànk yiw ba kenn ngay dellu fa nga jóge woon ndax lu baax rek leen di yëkkati woon te bis bi wane na ko tey ndax asamaan si nii mu xëyee tey ba gis ba ba léegi muy taw alxuraan doo a tax alxuraan doo la waaye bu fekkante woon ne laneen la jàppal fii bàyyil fii yàlla ju du def nii yàlla day far dañ ne yàlla du far waaye yàlla day far alxuraan doo tax mu yendool nii waaw te fii ba Touba Mbàkke nag bawul fenn kon ñi fi jóge yal na leen yàlla xare ajjana seen waajur yi ne barsàq yal na leen yàlla xare ajjana ñi nga xam ni ñoo tax ñu sos lii yal yàlla xare ajjana bi jaay Seydi Wusoot ñu ngi gërëm ñëpp di sant yëpp jërë ngeen jëf. Seynabou Ndiaye ak soxna Fatou Bintou ak soxna Fatima Ndiaye ak soxna Fari njaay ñoo am loo xam ne daal ak soxna Asu njaay muy Asu Bey waaw mu ngoog ñu defaroon benn surprise boo xam ne dañ koo baaxe woon seen oustaz muy seen sëriñ daara muy oustaz Sidi ndax ne nañ wax dëgg si yàlla dëpp ñu nekk ak moom ci daara ji ba léegi daal sonn na ci ñoom lépp lu nekk ci ñoom moom moo ko def ci ñoom ci alxuraanu karim ak yar boo xam ne nii yar la boo xam ne yar bu mucc ayib la mu jàppale leen ci côté bu ne léegi nag ñoom nee na seen yéene ëpp na lii wallaahi nee na liñ ko yéene woon ëpp na lii te it place bi nekk la rek muy jàkka ji waaye su fekkoonte ne fa la nekk am na leneen lu ñu ko préparé woon ci wàllu xeeti ay taalif ak yu mel noonu. waaye nag jataay bi ak jàkka ji nekk moo tax rek ñu xaw koo kiyal incha allah kon ñoom ngeen gis noonu ko defee man ngeen jege si ngeen jébbal ko seen sëriñ daar incha allah macha allah qualité nag moom it ndax léeg-léeg yebal ko ci barab léeg-léeg ndaje am fenn ñu nu ko jógal yow yaa war a dem barab sàngam léeg-léeg ñu yebal ku demee ne Sëñ Fallou Gueye léeg-léeg ñu yebal ku demee ne Mouhamed Lay ba tey waa membre rabita bi ñu bëree bëri ñu ngi fi toog ñoo xam ne ay daara lañ yor ñuy sottantey xalaat ci liggéey bi ak ci lu bëree bëri bëri di daje di réunion ci lépp loo xamante ne luy doxal liggéey bi rek luñ ci mën ñu du ko def kon ñu sant bu baax a baax a baax di gërëm bu baax a baax mboolem waa rabita bi waaye moom it di ko beral cant ak boppam ci pëstéefam ak yitteem ak doxinam ci biir raabita bi loolu ñu ñu leen ñu ngi koy seeral ay mbokkam yëpp leen xam ne membre boo xamante ne bu jël engagement la ci lépp loo xam ne ñu ngi koy taxaw te euh, liggéey bi raabita bi du dara lu liggéeyu bu rek waaye ne leer naa ne ko ko am engagement la ci liggéeyu raabita bi loolu ñu ngi leen koy seeral bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh waaye balay boobu ñu wax ne xale yi fi tari mokkal kenn ku ne am nga fi diplôme diplôme yii mbokk yi diplôme yi bu njëkk maanaam ñu ne amuñ ko woon solo dañ koo xeeboon waaye diggante daaw ren lu baree bari feeñ na ci mooy ni lu am solo la lii lu am solo la ndax état bi de da koy laaj état bi da koy laaj nguur gi daf koy laaj fi mu ne nii commencé naa jël ay sëriñ daara ku ci bëgg a bokk da laaj foo mokkale ak ana sa diplôme nañ ko fonk bu baax ñaareel bi daara sëñ Muntaxa jee ku ko bëgg a dugg faaw nga am diplôme bii loolu na leen leer daara majalis ja la jàngale xam-xam ku ko bëgg a dugg faaw nga am diplôme boo jëlee ni yow mokkal nga sa diplôme mi ngi nii kon nañ ko fonk bu baax a baax a baax ngir xataay waxtu bi nag duñ fi mën a nekk di def kon nañ ko daan defee waaye kenn ku ci nekk bu ñu la wooyee rek waa waajuram na ñëw jël diplôme bi bu gaaw waajuram na ñëw soxna Absa Ndiaye bu fi baayam nekkee wala yaaya mu ñëw soxnaa sa njaay mu gaaw